te assemblée mënu faa def mënu faa dindi mi ngi ne am ngi ne am problème pour mu lijjanti premier ministre nee na damaa woote ñaan wala wax de kon léegi loolu gëm lu waa ngi noonu nag damaa woote ñaan de la dama lay damaa woo ñaan ñee ñaan ñi pour ñu waxtaan kon daal kudd moom du fi am kudd bi ñuy teg ci conc yi ñuy teg ah, loolu loolu du fi am loolu du fi am ndax moom moom ci jëmmam wax na la sax alalam ni mu toll ba ak ak ni mu ko amee wax na la loolu kooku kudd kudd mën tam te wax na itam ni maanaam rapport yi génn ci 2021 22 23 waa kër waa waa ñi fi ñi fi nekkoon la daa mhm. dañul suñu rapport amaana deux mille vingt neuf lay gën mhm. kon dèjà kon moom pare na pour yebal cour de comptes ak mboolem euh, ñi nga xam dañuy contrôle lu jëm ci wàllu xaalis yu jaaju ñu dugg ci ministère yi comme ni ko loi santaane ñu dugg ci direction ñu dugg ci service yi comme ni ko loi santaane d'accord et cetera alors jëwriñ mhm. euh, bi mu duggee ci wàllu euh, assemblée nationale bi jëwriñ daal di sëriñ bi daal di tudd dem na ci bay def témoignage ci digganteem ak euh, le président ou bien le premier ministre Ousmane Sonko sànq sax moom lañ tekk extrait pour gars yi seetaanaat ka waaye ñëwaat na ci itam tension bi ñu jàpp wala sax donte nu du tension ci ñu bëri ci jàngatkat yu mel ni yéen jëm ci gouvernement ak assemblée nationale ci wàllu règlement intérieur bi donc moom la mu jëy yëkkati ci ci tontu xel war naa mën a dal am déet ci coow loolu. waaw dafa def jikkoy kilifa foofu ko. nu ko defee. Hmm, parce que ñaari institution bon dafa jàjj sax waa assemble parce que waa assemblée ñoom dañoo wàcc yoon. Hmm. te ñoom ñooy wote yoon. ba pare wàcc yoon. Hmm. assemblée bu fekkoon ne vraiment way nañu. ñoom Sonko da leen doon dimbali. <laughs> nga ba mu leen di wax naan yeesal leen seen luwaay yi ba pare may doog a ñëw ñoom dañoo waroon a noppi rek yeesal. moom mu mën a ñëw def déclaration politique générale wax ji jeex. Mhm. mais yow ngay fayantoo loo xamante ni naan daf la heurté te yow nekkoo ci dëgg ba pare ñu tooñ ñu tooñ ba tooññar bi ministre de finance wala ñëw pour def euh, kii budgétaire ñu bañ ne du ko fa defe mhm. xam nga moom la leen wax nii mais yéen premier ministre bi wax benn wax gis-gisam sàjj leen pour ngeen yeesalaat seen seen seen seen tox seen taxawaay. ngeen ne ni mu leen ko waxee neexu leen ba pare yéen ngeen wëlbatiku loolu metti leen ba yéen ngeen violé pour fayonteex moom ngeen viole constitution dëkk bi <laughs> loolu noo koy après da demande demander député Benno Bokk Yaakaar est-ce que ñoom ça va hmm? te loolu ba may dégg ñi doon wax naan le Sénégal et en danger mais ñi koy symboliser mooy député benn bokk yaakaar yooyu yaa ah. ñoom ñoo parce que ñoo xamante ni ñoom li leen war sax xamuñu ko di fayantoo bay violer constitution bi ah moom ci yaram ak tegginam mu woo président assemblée fàttali ko mbir mi wax ko nii li ngeen def nii bu fekkee ni premier ministre ni mu waxee yéen moo leen neexul mhm. mais loolu waru leen mën a jural ngeen ngeen ngeen ngeen euh, ngeen violer constitution bi tu vois léegi li ma leen di ñaan mooy bu leen fi créer coow bu leen fi créer crise parce que ñu ko dañ toll ci liggéey hmm? euh, demal ngeen def li nga xamante ni loolu lañ leen sant li ngeen war a def ngeen def ko bu ko defee moom bu ñëw def politique générale ñu jàll ci leneen loolu mooy yëfi nit quoi dafa nite quoi loolu soxlawul ngay nekk ay expert wala ngay nekk ay lenn pour wax quoi yëfi nit la quoi parce que tamit dañoo war a def attention ah, ci post yi ak ay maanaam dañu war a moytu di fal dof fa mhm. tu vois ñi nga xamante ni ñoom la ñuy war a fal dañ leen war a xoolaat bu baax vraiment seen nite fu mu toll quoi mhm. hmm? loolu lu am solo la quoi mhm. tu vois donc euh, comme ni ma ko waxee tamit euh, kilifa da koy wuyo d'accord te xam nga loo xamante ni waxtaan mën na ko lijjanti vraiment coow war a mën a bañ a bari quoi waa te di nga xamal benn affaire gis nga euh, waxtaan moo gën a jafe xeex waxtaan waxtaan moo gën a jafe xeex moo gën a jafe xeex. Mhm. waaw parce que pour nga waxtaan il faut que nga il faut que il faut il faut nekk nit ko ëmb nit ku nit ku noot boppam wàcc suuf pour mën a wax. d'accord donc. Euh... ci wàllu sànq maa ngi ko doon laaj léegi Serigne Modou Astou Mbacké ci wàllu suppression ou bien éventuelle suppression ou HCCT ou bien CEC. Euh, e. Mm -hmm. donc euh, conseil économique social et environnemental euh, ndax euh, nécessité am na. ngir tëbal leen ou bien euh, xool nu ñuy def ak ñoom. alors man samedi passé dama dem Thiès sama benn njënte jarbaat maa ngi leen di nuyu waa Thiès yëpp ñu toog di wax xam ils sont très politiques waa Thiès yi dinaa leen dundal ñu interpellé ma ci lan moo tax Jomaay defagul loolu. Mhm. maanaam éliminer éliminer caisse noir bi tëbal ko euh, institution yooyu. Mhm. mais man ne leen mais institution yooyu mënul xëpp tëbal ko te jaarul assemblée parce que yooyu ay décret ñoom ñoo koy. ñoom ñoo ko du du décret quoi ay vote la ko mhm. tu vois te moom bu fekkee ni nekkagul ku majoritaire assemblée. Mhm. mais munu fa dem naan dafay dafay dugal proposition de loi yooyu. Mhm. carrément. te laaj na aussi man je me pose la question est-ce que waruñu def réforme constitutionnelle. ba élection présidentielle ak élection parlementaire. du ànd doon benn comme ni ñu ko doon defee bu njëkk ba ko waaw ndax am na yoo xam bu ñu ko bëggee sax soppar ni il bi comme ni mu ko waxee. parce que bu fekkoon ne présidentielle bi ak parlementaire bi ñoom ñoo ànd su kiy gagné président bi mën na gagné wàll ak majorité nga xamante ne bu subaa du am benn jafe ak présidentielle loolu nga jàpp. waaw boo voté président dugg fee voté parlementaire. tu vois bu ko defee lii mën na loolu mën na tax dans le futur président bu ñëw gagné du am ah, problème quoi rek suñ dernière émission mu ngi ko doon wax hmm? naan naan amoon na mais euh, wàllu quinquennat ak yooyu septennat plutôt moom moo ko yàqoon loolu bon tu vois donc bu ñu euh, defee élection législative anticipée mhm. euh, bañ a génn mhm. daañu mën a am même même année. couplé ko quoi. waaw daañu am mën a am même année. Mhm. te mënuñu créer les conditions sax pour couplé ko. pour couplé ko quoi. xam nga pour. war nañu war a mën a yegg foofu. mais mhm. mhm. bien sûr. rien nañu waaw empêché wu ñu war a mën a yegg. man ñaar yooyu daal yitteel na ma ak tamit liste unique. Mhm. liste unique élection présidentielle ñu def benn liste unique. éviter maanaam kayit yu bari yi ñuy. Euh, ak euh, pour gën a gaawal vote bi pour bañ a yàq xaalis daal tu yooyu euh, jàpp naa ni institution yooyu moom ñëpp xam nañ ni vraiment. budgétivore la quoi. waaw yooyu moom conseil économique social man xaw ma lan lañ mës a conseil président moom ba mu ba mu ne lii ci ñoom ñoo ko conseillé quoi. tu vois et puis et puis mhm. man man j'ai toujours dit que. Mhm. Euh, caisse noire en tur wi. tur bi. c'est-à-dire fañ ko hérité ci colombe mhm. tuddee di caisse noire caisse noire président assemblée da ko am mhm. président institution yeneen dañ ko am mhm. yaa ngi dégg am na ministère am na ministère yu am de souveraineté yooyu sax mhm. yoo xam ne dañu am caisse noire donc tur yi la ñu war a mën a de souveraineté nationale fonds présidentiel de. mais man xam nga lu ma jaaxal hmm? Ablaye. Hmm? man dëkk tubaab yi mosuma fa dégg kees yooyu. man li ma gis fële dëkk tubaab yi. fonds yooyu du président institution moo koy gérer ko parce que bu fekkee ne am na dépense yoo xamante ne président bi daf koy dépenser. tu vois. pas la personne mais l'institution quand même. waaw dafa am benn kii bu kii bu koy ah, gérer. donc mais ñun suñu suñu état yi. d'accord loolu moo tax mu war a changer. dëgg la joriñ li mu wax nag. Euh, euh, euh, non sëñ Assou ma sëñ Assou lu mu wax. da nga ciy ànd. Mhm. da nga ànd parce que. ñun dañoo nekk si dëkk yoo xam ne. jafe na jafe yoo xam ne mhm. da ngay soxla urgence. surtout day nekk si urgence. Mhm. président moo siy mën dara. ala kulli yàlla. président Macky Sall am na ñu dimbali. Mhm. si urgence. président Abdoulaye Wade am na ñu dimbali woon si ah, urgence. et cetera voilà donc xëy na xëy na boo demee boo demee ba changer tour wi ba ñu adapté wu si. Mhm. daal da daa dootuñu am dootuñu am si perception bu négative. te nga ne fonds présidentiel de souveraineté nationale yaa ngi dégg. Euh, lu mu lu mu lu mu lu mu lëmb lu mu euh, làmb dafa bari lu mu ëmb voilà lu mu ëmb dafay bari mhm. léegi nag si li nga xam ne moo jëm si si institution yi candidat yi yi candidat yi doon prétendre yëpp à la magistrature suprême. Mhm. moo xam ñu jot a jàll parrainage. Mhm. nekk candidat officiellement ak ñu doon wute amuñu parrainage. Mhm. te mujj ñoo nekk candidat ñoom ñëpp. boo ku soo xool programme am. da nga doon militer pour la suppression des institutions. parce que ñoom ñëpp dañuy wax ne c'est des institutions budgétivores. léegi nag le conseil économique social. yàgg na fi. boo fàttalikoo wala bu ñu fàttalikoo Famara Ibrahima Sagna. jiite na ko Abdoulaye Wade boo mu ñëwee mu jël conseil économique social boobu. Mhm. changé ko def ko CRAES. Mhm. conseil de la république euh, pour xawma lan ak lan ak lan ak xawma pour les voilà xawma économique mu dénkoon ko euh, euh, kii nu ñu koy waxatee non non kii kii Diop bu bu Tëngéej. Mhm. pour Mbaye Jacques Diop. Ah, yaa ngi di gis. président Macky Sall bu mu ñëwee réforme ko andi conseil économique social et environnemental. xëy na conseil bi mun nañ ko tëggaat. am andi ay réformes profonde et majeures. mais nag yi leneen si institution. jàpp naa ni war na mën a naxsaay. d'accord parce que ay haut conseil des collectivités ak yooyu te yow nga am ministère de tutelle. Mm-hmm. am ay direction yuy liggéey. am agence yoo xam ne yiy liggéey si wàllu li nga xam ne moo di territorialisation si mm-hmm. wàllu lépp li nga xam ne dafa soxal euh, euh, euh, politique politique de décentralisation et et, et véritablement de mhm. jàpp naa ni ay la yoon organe de consultation boobee. Mhm. rapport bu mu def cest à que da doo ñëw da nga koy jébbal président président bu ko neexee sax du ko lire. parce que tu es un organe de consultation. Mhm. d'accord président sax su ko neexee du lire sa rapport. donc war nañu yooyu moom war nañu ko dingi na tegee ko am loo xam ne dañ ko fiy dugal parce que président Macky Sall bu mu ñëwee dafay fekk Sénat. Sénat. parlement la boo xam ne bu am solo si démocratie bu bu bu am bu am nag moyens yi je veux dire mm-hmm. mais boobu yéen tasul Sénat mm-hmm. tasul Sénat ah, mën ma mën ma la ko tase woon mais boobu yéen andi na fa ay yeneen institutions yoo xam ne boo ko xoolee boo ci biir c'était pour caser une clientèle politique mm-hmm. Sénat leen ëppoon njëriñ voilà si <laughs> alors euh, merci beaucoup Abdoulaye jërëjëf jëwriñ euh, Cheikh Ahmadou Bamba euh, en deux heures quinze minutes d'interview Euh, ma mel ni man ku dégg ne euh, le président de la république muy wax ci wàllu rationaliser lii di train de vie de l'état mm-hmm. est-ce que loolu mën nañoo jàpp ne c'est lutter contre le chômage des jeunes surtout parce que sànq tout à donte nañu ñu ngi koy wax maa ngi dégg ko mel ni un opposant Bougane Gueye ni moom toog na déglu ba pare waaye déggut lu ni mel